lah. Besok lah kan? Kita orang dah bawa TV nyonya dia lah lah dia cari. Dia cari wer wer. Dia lah dia ke काम का ये जो लगा अंतिम के नो नो को कमाते हो गए ये चले जी ला जा मग स्वामी याद रखना हर नक्की जाए दूसरे मग मासी जाएंगी मग मासी जाएंगी याद मग जाएंगी yaakaar yaakaar mu boole ci jaay ah waaw léegi boo boo ko kiiwee seetloo léegi maanaam jamono yu njëkk ak léegi nan la gënoon a dox daa doon ne bagage bi ne nii dafa gën a yokk daal. waaw fi mu nekk nii moom bagage bi moom dëgg yàlla moom fekkee ni dëgg rek la yàlla bëgg moom. kenn ku fi nekk dafa daa ko ci liggéey moom fu toll nii xam nga waaw waaw bagage bi lépp dafa seer. ceeb dafa seer dooleem dafa seer lépp daal lépp a yokk. xëy na mu micro. waaw seetlu nañ ne léegi sax maanaam bu ñu ko gisee. mais ay ah, ay ah, ah. amoon nañu rek maanaam. tey muy micro bi ay ay. amoon nañu rek maanaam groupe bi dafa yokk. tuuti rek waaw lépp daal boo ko seetlu. mu mel ne kon ku yéen ngeen jaaykat yi maanaam dana métti ci yéen loolu pour jaay am vraiment mel na ni ñi ngi ñi ngeen di jaay tamit. bon man nañoo bañ a gis seen bopp di maam li ngeen di jaay fekk na affaire yi moo xaw a xeex mais yéen ñu ngi ci ñoom ñu ngi ci xam loolu daal mais yéen ñu ngi koy jàng. mais kon dina xam ne client yi rek. te rek nooy naxante ñoom rek ndax liggéey moom daanaka léegi moom ñëpp a yem bu si nekk rek la nga ca daan am rek genn wàll bi léegi am toog da ngay nekk rek di góorgóorlu gis sa njaboot ndax toog moom baaxul loolu ci am rek nga xam ne lii nga ci am surtout di fi yàlla waaw waaw yow de parce que yàlla mel na ne eh, ñaata at bi ngeen ñëwee Dakar Tamba léegi ñaata at la. Tamba fi mu toll nii mu ngi toll fukki at ak ñeent. Ah, fukki at ak ñeent. waaw ah, mel na yaa ngi fi bëgg a yàgg. waaw waaw wax dëgg yàlla gis nañ sa taxawaay bu rafet wax dëgg yàlla yaa ngi jàppale ak sami xëy na bagage yi seer na waaye teewul yaa ngi ciy yaa ngi ciy jaamu suñu borom bu baax a baax daal waaw bu mel na ñoo xam daal waaw am naa ñu may jàppale commencé ah, ah, waaw mu mel ne ñoom it day jàmbaar la ci liggéey mais jàmbaar la trop ñoom ba léegi banan naa ko yàgg dëgg yàlla liggéey bi ñoom ñoo koy waaw mais léegi damay ay ñoom soxna Ndeye ak ay sa beneen doom ci ñoom ñëpp. ñoom Ndeye ñoom Diagne waaw ñoom Diagne. ñoom Fatou ñoom Fatou ñoom ñëpp damay gis ñu ñëw ñu ñëw di jàpp liggéey bi. te yooyu moom dëgg yàlla bu baax nga gis naa di ngay accueillir client yi maanaam di leen taxaw daal ci li ma xam ne jaay bi dox na waaye teew maanaam euh, metti na waaye teew boo jaay rek maanaam faram dana fekk waaw. loolu lépp rek da ngay kii rek xam ne dafa nit sa njaboot dañu rek. Mm-hmm. xam ne tamit yow miy liggéey métti na mais tamit ñii bind xaalis bi tamit métti na lépp rek jàppalante rek la jàppalante waaw gën a waaw gën a baax bu mel ne maanaam yow da nga fi am kër Dakar wala da nga fi am location. man aw ma kër damay loko damay luye rek. Ah, waaw waaw yal na yàlla sëñ Mor Fatou baaxum def ñu ngi am kër ñun ñëpp ñam koy. waaw dëkk bi moom ba yëpp moom fi mu ne xam ne métti na métti waaye boobu ñun ñëpp ko boole yëgandoo. surtout étranger yi ñëpp nga xam ne ñoo ko yëgandoo daal. maanaam dund gi seer na. lépp cher na maanaam daal waaye lépp lépp bëgg a liggéey rek moo tax yow maanaam nga ñëw jóge village ñëw fii ubbi sa place ànd ak liggéey wax dëgg yàlla di daan doole ngir yóbbu kër ga wax dëgg yàlla ñu ngi waa daaru baax bi gis itam moo tax ñoo la ubbi ubbi yoon tey ñoo la ñuy a seet seet si daal